mel na ni bu ko xasee am ndimbal li ma mbawoon na ko xel ba noppi weer wax na ne wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin nag nanu ko dégg ni ñu ko jubloo nasrul mu'miniin doon julli rek dafa doy ndimbal waaye ndimbal li yàlla warul ab jullit nag dafa am sar sar bi mooy ban mooy wa ala llaahi fatawakkalu in kuntum mu'miniin mooy wa ala llaahi falyatawakkalil mu'minuun kon nag tawakkul boobu nga xam ne moom la santaane nga xam ne moom la ñuy def suñu gëm ko dóor a wér doon a sax ndimbale bi ak waroon ko dóor a wér saa bu ñu ca nekkee ba def ko ba mu wér ci ñun ci ñun loolu la ñuy fi sëf yi yow ma isin yafrahul muminuuna bi nasrillahi yansuru man yasaa wa huwa al-aziizu rahim wa'da llaahi laa yuxlifu llaahu wa'dah loolu mooy li wér wàllu ndimbal daa doon ñu ñëw ci wàllu yërmande ji wàllu yërmande ji itam moom ginnaaw rasulillahi bi muy tedd tedd ñu ngi daf koo wax ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina loolu wane na ne kon yërmande ji moom ba mu sotti bindee fi rek la ñu tàmbali yërëm yërmande jooju nag li muy yaatu yaatu ak li muy rëy rëy ci doole bindee fi mu ñuy bind rek mu garal ma ci loxo nag moom doomu aadama ngir dafa wax ne inna allaha bi naasi dara awsun rahim dara awsun rahim jooju nag xéewal ju rëy la ci ñun boo xam ne dama war a seet rek nan koy war a mën a jëriñoo ba jot ci ma jëriñoo ko. nan koy nan ciy jotee nag laa leen bëgg xamal moo di ñi nga xamee ne kenn ci yéen ku ne mën naa waat ne kooku wëlli si ahyaakum su ma yumiitukum su ma yuhyiikum kenn ku ne mën ngaa waat ne yàlla moo nuy dundal moo nuy rey moo nuy dekkal ëllëg da nga ñuy mën a waate ne maa yaxtashi llaahu li naasi min rahmatin falaa mumsika lahaa wa maa yumsik falaa mursila lahu loolu moom boo xamante ne jàppe nañu ko noonu xam ne yàlla buntu yërmande bu ku ko mën a féete amut bu mu bu mën a capté sa ku ci mën a ko ubbi mën a ko ubbi loolu boo xamante ne doo doo réussir ñun wér dafay daal di leer ne yàlla tàbbal na lu ci yudxil wa ni saw fi ramati loolu kon amul nattale kon yooyu ma di jàngoogu ñu ci wàllu sëñ Tuubaa nag sëñ Tuubaa moom ba mu jógee dafa ne dañ ne yàlla wuti ko yàlla daal ko ne joxoñu ni ko ma nga ne mooy sama bunt mu dem ci rasulullah mu ne ko kaay ma yóbbule moom da mu digal ko li mu wax jundir yëpp dan ni yàlla ala muhammad waxaat ni muhammad bi sama ba mu ko yóbbul ci yàlla yàlla waxu ko dara lu may yàlla waxu ko dara la may wallaahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminina mu daal di noppee ànd ak sagam daal di ne tànn nañ génn bala yàlla di ko wut yitteem yëpp mu jëme ko ci. amatul jàmm guddi amatul jàmm bëccëg doo leetu koog lan àndu sa kenn di ko sàpp rek saa boo xam ne bëgg nga koo wan leneen wala nga bëgg a wax ak moom leneen ndax lay tontu ne lastu amiidu li siwaa maa yuriidu rabba samaawaati wa rabbal ardi yooyu tànk la ndoxee di ko ndoxee di ko ndoxee ba ne taru diis ci ngërëmal yàlla loolu lay xaala akbar bu ñu ko ñëwee it mu daal jóg taxaw wax ca kaw daal di wax ne man lam yakun xam ne yar laa fal karim ral yi am na lay lay seri loolu nag bu ko waxee kenn du ko weddi ku nekk dana ko mën a nangu ngir jaamu yàlla buy jaamu boromam di ko jaamu di ko jaamu ba yegg ci nag ñu si baatee ko rabbi nga sëriñ kalaw xam bi yu dëbbi yu aayam teel si yu tama kooku lu mu wax ci ngërëm lu am ci diggante moom borom ñëpp nangu. kon moom di jëm yàlla ngoom suñu diggante moom la des. su ndigal noonu la ñun danaa fab suñu xol fab suñu xel fab suñu yéene fab suñu yaakaar fab suñu kóolute fab suñu lépp teg ci loxoom ba noppi a fab suñu jëmm teg ci na ko dam di ko topp fekk wuñ ci woon dara lu am ngërëmam dong boole wuñ ko lenn nit ñàkk ko gën ko ñàkk boole lenn nit mu daal lay wan li muy jural fasaasa li kulli man bi yataxallaq najaa min qadari dunya wa fi yawmi najaa muridin bi yàlla yaqadu bayna wa bayna asab bu baax a ji loolu dafay ne foofu la war a yem ak yem ak moom yem ak ñun mu daal di am lu ñu si dolli lu wér lu gën a dëral suñu yaakaar gën a rafetal suñu njot yaxey lin taxaa bi mun taxaa kulli si saqaa wayun boobu bis ñu naan sa ay bi mu soo toq kon nag loolu wan mu leen ni ah bu fekkee ni ñu jiwoo la condition yi alhamdulilah rabbil alamin yàlla li nga xam nag ñun moom moom moom ndimbal moom yërmande yàlla na nu àtt ci yërmandeem ak ndimbalam te bañ noo àtt ci maandoom bañ noo àtt ci son sakkante ak son leer. أنت سبيل بك الوصال لمن ينيل خير سرائي أسهبت هوريا أسهبت حي كملت راهي كالكبراء خير الأنام فيك قلامي بلا ملام قلبي رضاي يا ذا الجميل يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لذي القضاء فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انقضاء خير الهباد باب الأيادي Touba ji Sëriñ Touba dafa waxoon ne ku fi sam xel indi wut soo xel dana la fi indi ma bëgg nag taalibe yépp ñoom seenu xel indi leen fi te ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne seenu xel leen fi indi lu war a mat ñaar fukki junniy loo natt nañ ko fi ba lépp bor na nañu ko mu doon ay kër képp ku bëgg kër boo fi dikkee danañu la ko jox ci di su laaj fukki dërëm sax loolu ci li ma bëggoon rek mu leer leen leen من خير مكر ولا هجاء ليتناشى فككت هبتي أسهبت لابسي ست ختاي سنت جهادا ست هباتي أبقيت ساتي ما الأتاي لك رجاه ما جماه بخير جاه ولا خطاي لك التفات يا سسلاتي yéen mbokki taalibe yi ci baatub Cheikh Abdou Sakour xalifatul maam Cheikh Ibrahima Fall moo leen di jox ndigal taalibe nag ndigal rek ana li ndigal li taalibe nag bu déggee ndigal du guddi na du ni naañ na du mënuma ko du niigal karaama nii bi am na nii lan usiku sayan bi wa ma nahaani muhriku rallitu anu wa waxani raali wali yaqudi suuna fi axraali bara ani mima yuwa dinu saqa wala yuwa jihu li saatiya saqa karaamatil kawni lhalil karimi li yabi sadin maha takrimi sali allah sayidina muhammadin sali allah sayidina muhammadin allahuma sali allah sayidina muhammadin bismillahi rahmaani rahimi wala liyun li siwaajiyaati tara doomunin yadi han aati addani allahu taala ala bisiri wa waddini saw hila allo li wajhi lahi bil kitabu wa fistiri tilawa sabba sayatin alwara ila siwa maxtara li wa yeiso minni sawa isa katabtu tasahar si rabbana wa sabbahat junud rabb fal bina sabat kitaabati hidaaya laayil aad wa qawmi kulle asaadi jahaat kitaabati kabatatil ahwaaja wa sasa li xayrina al awaaja xam nañu ndigal rek moo jëriñu taalibe bi xam na ni ci la taalibe bi mën a jëriñu bu ko fekk ñu ngi koy digal mu jëfe ndigal rek euh, mel na ni mu ngi ci sakku li nga xam ne moo koy jëriñ ñi ngi fi nag ci kaw ndigal ndigalul sëriñ ci taalibeem ndigal li moo di topp li sëñ Touba santaane bàyyi lu mu tere loolu rekk moo nu fi tax taxaw fii loolu it lanoo sàmmoon parce que yéene di doxal ba ba noo fekk sëñ Touba. ñi nga xam toog na fii. saxbaam toll ci suba sa subaa la la seenu bu njëkk mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci sa bu mu wenn bu dem bu weer bi da ngeen seen lu nuru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sër bi suñ ko ñu bañ a woor ñu ña ña ko déggu xëyee koor yi ba ci bëccëg ba ñu ko yónnee ñëpp dañoo dox ñun waa Touba ñu jël ci bari yoon dox mboolem lii may wax loo xam ne ubbu na kenn nit ndax mboolem ñu gën ñëpp ay seere yi li may wax ba loola jàllee mu am lu ñu ci sësale di leen di wax ne sax ban bis sàngam ci la bokk li leen wax ne bis sàngam ci ramalaana la bokk li nga xam ne moo wax ci alxuraan saaru ramalaana la ci aujore ci alxuraan di ko ko di ko ko xamal bu ko noppee wax ak yéen maa ngi leen jox ndigal lu wér loo xam ne na ngeen ci jàpp ci ndigal bu bay ndigal loolu moo di bu boobaa xool leen seen nopp defal seen bët képp koo ci xam ne gis nga ko gis nga weer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 حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك لغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت الشهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولي يا من إليك سرمدا تحولي أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي سناء لا أحصي مبدئ يا معيد محيي يا مميد أنت الذي تحيي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا قادر يا من كونه